Assalamu alaikum. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Ministre, Mangline ngi di sa collaborateur, monsieur le directeur du FERA et l'ensemble du personnel du ministère Tout monde FERA parce que FERA dafa un rôle pour nous, bu mu commune rurale monsieur le ministre ñu ngi lay wax ne loi bi danañ ko voter ndax loi la boo xam ne day améliorer la condition des Sénégalais condition de vie de tous les Sénégalais donc danañ ko voter su ma jógee ci loolu ma ñëw ci seen liggéey ci Sénégal surtout ci ñun Casamance ñun suñuy dem Casamance léegi mun nañ ko def heure bu ne ak nu ñu neexee pont monsieur le ministre ngeen jóge fa le pont de Marsasso. nga xam également de faire de totalement la Casamance monsieur le ministre yemuloo fofu. nga dimbale ñu lu avec le président de la République ñu def la pose de la première pierre du pont de Témanto du nom du professeur Bala Moussa de la commune de Sédhiou donc désenclavement total de la Casamance Nous ngi leen ci monsieur le ministre nous avons désenclaver le Sénégal le pont de Rosso plus de 100 ans de souffrance vous êtes en voie n'est-ce pas de finaliser ce programme monsieur le ministre nous devons parlé te la Casamance taw bi su nawet jotee dëkk yu bari du ñu demante ngénte du ñu demante leneen dafa am ay pont yu ndaw yoo xam programme spécial lañ ko war def pour régulariser pour euh, dimbale population bi ci yooyu parce que taw bi moo tax dafa am ay communes yoo xamante ne seen biir dañuy toog trois mois pendant l'hivernage kenn du déplacer wala sooy déplacer nga def contournement bu rëy kon ñu ngi leen di ñaan ngeen def fa benn opération coup de poing pour que ñu comme dans la commune de Diambati Bogal Inor Bonna Amna. mais monsieur le ministre mangi promouvoir la Promoville dans le cadre de l'équité je suis village parce que les villages au même titre que les villes ont des besoins donc si nañu ñu une action bu les communes rurales. rurale da ville commune population mais discrimination tax un problème donc il est temps que nous un village monsieur le ministre nous parle te posé une question qui à quand le train dans la zone sud du Sénégal les rails à court moyen ou long terme parce que l'eau aussi sous une la de nous ñun tamit ñu pour faire de grands travaux de transport monsieur le ministre nous avons lay de la santé di Sénégal jàmm lañu xam nañu bàyyi di xool doomi jàmbur di ko wax yenn yi di ko teg kenn ku ne am na foo jóge am na loo am am na ku lay déglul fii jàmm lañ fi war a wax fii dëgg lañ fi war a wax fii waruñ fi wax wax ju ñaaw nañu xormalante Sénégal loolu la xam nañu dem ci loolu te fii bokk na ci place yu ba gën a rëy ci Sénégal donc fi ñëw na nga tiitaroo wax lu baax wax lu rafet dëgg nag dëgg la mais dëgg mun nga wax dëgg fekkee yàqul dara kon maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm merci boobu merci cher collègue